si soko ñu ngi lay nuyu. mais maa leen di fay soxna si. Euh, nga yore euh, communication intersyndicale liggéeykat yi ne ci collectivité territoriale ak administration waaye itam secretaire général FGTSB. waaw ngeen nekk ci mouvement d'humeur de grève. xàppati euh, 96 heures depuis démb. lan mooy seen plateforme revendicative ndax mën nga cee delluwaat. waaw ñun voilà maa gox goxaan ñu dëmalaat euh, suñu reer yi ñu xam ne dañ ko euh, le début léegi def na at ak juróom-ñaari weer ñi ngi ci kaw grève boobu mu jaaxal yu bare parce que tey si année deux mille vingt trois bi boo leen ko ko fat boo leen fàttalu ko mhm. def nañ vingt trois plans d'action tey ñi ngi déjà en deux mille vingt quatre di si suñu cinquième plan d'action boo day wone ne rek ne à côté ñun dañu amoon na benn ay droit yoo xam ne gouvernement bi daf ñu ko daf ñu ko amel mu bañ ñu koo fay mooy revalorisation salarial mm. te revalorisation salariale yooyu ñu nag agent état bi ñu ñoo ci mais ñoom fay nañu agent état yi fay nañu agent yeneen secteurs yi ñu bàyyi liggéeykatu gox goxaan yi. Mm-hmm. te loolu ñu yaakaar ne loolu du defar réew. parce que réew bu euh, bu yu mel ni amee da ngay yemale ñëpp. Mm-hmm. boo buggee jàmm am mais ñoom dafa mel ni tey ñoom seen agenda politique moo gën a intéressé agenda social liggéeykat yi. Mm-hmm. waaw tey euh, grève yi yéen ñëpp umpale leen ne mi ngi mi ngi lor askan bi. parce que askan baa ngi siy sonn. Mhm. déjà yenn seen groupe seen équipe yi def nañu ay reportage partout au Sénégal nit yaa ngi wër pour am pièce mënuñu ko am. Mhm. même des fois bu ñuy dem si ay postes de santé ak de santé faju sax dañuy am jafe-jafe. Mhm. waaw gouvernement nag rôle moom moo nekkal fii askan bi. mais askan bi tamit boo leen naree ñii nga xam ne dañuy liggéey te bokk ci askan bi tamit bu ñu nee ak yelleef yow da nga ko war régler. mooy dëgg loolu mooy dëgg parce que doo mënuloo toog naan jàmm la bugg bañ a fay liggéeykat collectivité territoriale yi te loolu ñoom ñoom duñ ko nangu parce que nag dañu bokk si askan bi ba pare am fi ndey am fi bàyyi ba pare di dund ay jafe-jafe euh, jafe de la vie chère. Mm-hmm. parce que tamit ñi xam ne rek ne loolu yëpp lu ko indi woon. mooy gouvernement bi moo fi commandité woon benn étude sur le système de rémunération mm-hmm. nee nañu payeurs yi ñu mu doon amee Sénégal dafa digg yoon euh, dafa doy waaroon mais loolu ñu ni nangu ko ñu dem ba ñu signaler ñu protocole d' accord ñun travailleurs collectivités territoriales yi dañu amoon pour ñu revaloriser le point indiciaire amoon pour ñu augmenter ñu salaire yi revalorisation par hiérarchie comme ni ñu ko defalee agent état bi mais beneen bi mooy ñi nga xam ne ñooy liggéey dans les structures de santé municipale ni am seen euh, augmentation yi ñuy jox agent état bi ñu si santé bi mais ñun loolu la ñu leen réclamer ñetti points yooyu la am ah mais depuis lors euh, euh, premier ministre recevoir ñu 10 novembre 2023 mais keroog bu mu recevoir mais premier ministre daf ñu joxoon ay garanti yu leer. Mhm. mu ne ñu dama maa ngi leen ñaan ngeen dakkal seen grève bi parce que fu mu nekk nii population yaa ngi yaa ngi yaa ngi sonn si affaire grève collectivité territoriale. Mhm. mais ñun comme que ay citoyen sénégalais lañ te bëgguñu dara lu lor askan bi ni nangul ko loolu te buñ ko koy nangul yi tamit demuñu sax si suñu base yi ñun ñoo jël suñu responsabilité xamal ko ne ñun comme que ñaan nga ñu ko te yow yaay suñu premier ministre ñun koy may ñi dakkal grève bi. mu ne ñu si diiru di fukki fan moom dina régler problème bi mais ñun sax ñun ñoo ko ne woon nañ la may fukki fan ak juróom mais depuis le 10 novembre 2023 ba léegi mais moom waxu ci nangu ci kenn waxu ci dara ñu ngi seetaan nit yi di dem grève population yi di sonn. Mhm. waa léegi léegi léegi lu ñu bëgg a ñoom. nañ ñu ko wax. Mhm. ah léegi daal léegi daal ku tooñ ku ñu tooñ daal moo tooñ. Mhm. te loolu mënul am dañ ñoo tooñ ba ci kanamu yàlla. Mhm. parce que lu ñu lu ñu jagleel ñalee dañ ñu ko war a jagleel bu ñu buggee jàmm gis nga nag réew boo fi woo boo buggee jàmm am da ngay def jàmm. def jàmm mooy nga fay nit yi. boo ko deful nit yi duñ la may jàmm dañuy taxaw laaj seen ak ak yelleef parce que yow ëppalewu wu loo leen ci réew mi. loolu mooy dëgg. d'accord euh, Moussa est-ce que euh, situation euh, politique crise bi ñuy euh, jànkonteel jamono ji taxul itam mbir mi yeex ci seeni côté man de soxna si man de dem wax en toute honnêteté man gisuma lan ban situation politique moo fi war am mhm. ba gën a am importance ay àq ak amel ay liggéeykat mhm. man gisuma ko parce que man lu ma jàpp mooy mooy ñun liggéeykat yi ñun liggéeykat yi yu nekk si gox goxaan dañ fi am dañu am ay droit dëgg la réew mi am na ay situation politique mais bala ngay wax situation politique kay dangay wax situation sociale yaa ngi dëgg situation sociale mooy askan bi nga xam ne suba ñoom ñooy dem di voté ji ñoom ñooy kii da ngay régler sa problème waa boo boo yow bu fekk ne yow da nga bëgg a dem euh, bëgg a régler sa agenda politique bàyyi ay ay benn pàccum réew mi ñu si bare bare bare nekk fii si kii si réew mi nekk ay agent yow nga ne doo doo leen fe soo doo doo leen jox seen àq ak yelleef. Mhm. mais suba mais yow lay porter préjudice mais du porter préjudice keneen. Mhm. man dama yaakaar ne gouvernement bi dafa am. pour toog ak intersyndical bi ñu seet bi ñuy régler problème yi de manière définitive. Mhm. loolu mooy dëgg. suñ ko deful suñ ko deful coow day bare rek parce que ñun dañu dootuñ tegi suñu tànk. parce que dañu am suñu àq te dañ koy réclamer comme ñu ko ñeneen ñi di réclamer fii si réew mi. dëgg la euh, suñuy équipe euh, ci terrain bi def nañ constat bi euh, collectivité territoriale yëpp bank nañ seeni loxo liggéey ñu loolu xaw a sooxe askan wi bu baax ndax da ngeen di dëggal seen tànk ba am li ngeen bëgg. waaw soxna si gis nga man dama dul ndamoo grève wax naa ko sànq si nasaraan. Mm. parce que grève tamit boo gisee syndicat def ko rek dafa amul fu muy langaamu ba dafa dafa amatul lu mu def moo tax mu dem grève parce que grève gënalu leen man de du ma ko ndamoo mhm. grève man du ma ko ndamoo parce que grève arrangé wul kenn même ñun syndicat yi arrangé wuñu arrangé wul population yi arrangé wul bi donc bu ñu poussé ba ñu dem grève mooy dernier recours comme ni ko tubaab bi di waxee mais man en tout cas man suma organisation syndicale ak ñu may àndal ñun laboowuñu grève bi parce que grève bi deful dara lu dul ay lor ay nit bon dam yaakaar naa ne nit nag doo toog naan damay ndamoo loo xam ne dafa lor ay nit du dëgg mhm. donc man lu may wax gouvernement bi mooy nañu jéem a woo nit yi toog waxtaan ni seet du ñuy trouver solution lu mu gën a gaawee loolu mooy wax bi parce que lii baaxul si réew bugul booy woote jàmm da ngay def jàmm mhm. jàmm mooy indi jàmm mais doo doo ñëw ne di lor ay nit ba pare bugg ñu wax nit di croiser les bras duñ ko nangu loolu c'est pas possible mhm. voilà d' accord euh, fonction publique euh, locale décret d' application bi euh, fan la toll ndax lu effectif la. mais effectif na depuis 2011 il y a la loi 2011 08 qui porte euh, mooy porte statut général des des des fonctionnaires des collectivités territoriales bu ñu ko wootee depuis loi bi génn na ñu voté ko à l' assemblée nationale depuis le le 2011 ba léegi. ni ngi taf tafal tey loolu mais dañ ci war a jóg ni régler ko de façon définitive loi bi bu voté nañ ko décret d' application yëpp tous les décrets d' application ont été pris mais lan moo ko sooxal mais c' est parce que tout simplement à côté dafa ñoo xam ne dañ deful seen liggéey dañoo xamante dëgg yaa ngi dëgg liggéeykat yi ñun du suñu rôle parce que dañoo am une administration qui est là qui doit s'occuper de cela. ñan seen seen liggéey. ah ñan ñoo deful seen liggéey kon. mais ñu deful seen liggéey mooy ñu ñu confier dossier bi. Mhm. mooy c'est le gouvernement du Sénégal. Mhm. mais loolu rek mhm. waaw à travers les les ministères concernés ñoom ñoo deful seen liggéey. dëgg la euh, jamono ji loo di xaar ci seen ministère de tutelle. luñ ci xaar moom ministre bi moom dina war a woo fam parce que bon man awma dara lu ma ko reproché parce que moom moom ñu woo neñ moom du moom mooy régler problème bi parce que régler problème bi si kaw lañ koy régler mais moom lu mu mën dinañu fexe. buñu si koo xam ne yaakaar ne moo war a régler problème bi muy ma amul monsieur Amadou Ba mais yóbbu na ci moom yóbbu nañu ba ci moom kooku dañ ko ci remercier di ko sant mm-hmm. parce que moom rôle am joué ko mm-hmm. pleinement dans cette histoire moom jël nañu yóbbuñu foofu waxtaan nañu ak premier ministre joxe na ay garantie mu ne dans dix jours dinaa régler problème bi waaw dans dix jours réglé ko ba léegi te bo ñun sax bind nañ ko lettre pour rappeler ko bon ñu yaakaar na peut-être ñoom ñoom euh, ñun euh, da dañu considéré wul amuñu benn yitte si liggéeykatu euh, collectivité territoriale yi loolu la ñu gëm ñun te loolu moo am. Mm-hmm. d'accord wax nga ko sànq grève bi yàgg na léegi mu def ñaari at yéen a ngi ci grève bi leen nag quatre-vingt-seize heures yi bu ngeen amul li ngeen bëgg lan ngeen ci lan ngeen di def luy prochaine étape bi ah mais dañuy continuer rek mm-hmm. continuer continuer ba ñu am lu ñu wër parce que peut-être ñoom dañu opté nañu bàyyi rek ñoom dinañu bu ñu sonnee nañu arrêté grève bi mais bu ñu yaakaar ne loolu mun nañu décourager loolu du ñu décourager mhm. parce que travailleurs seen bopp ñoo jël seen destin en main nee nañu ñoom du ñu nangu bàyyi du ñu bàyyi ëllëg tant que réglé wuñu seen problème mhm. te incha loolu mooy am ñun du ñu dellu gannaaw si affaire bi bu ñu si dellu gannaaw mhm. voilà d'accord euh, Moussa Sissoko ñu lay sant euh, bi ngi lay gërëm soxna si. voilà di fàttali rek euh, yaa yore euh, communication intersyndicale. travail euh, ba pare général FGTSB. man maa remplacer Sidia Ndiaye. Mhm. si bopp syndicat boobu. d' accord jërëjëf. boobu d' accord jërëjëf.